Jesús. فسوف يعطيك ربك فترضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi nga xam ne ñoo ngi si Wadduha TV ñu ngi leen di nuyu di leen di siyaara di leen di di fàttali ñëpp ne mbokk yi ñuy topp si Wadduha point org wala Wadduha TV wala ñi ni top ci radio bi ak fepp fo xamne ne la jaar pour mëna a jokkoog Mara Cissé mu ngi leen di wax ne point de vente yi ngeen xamoon nga xamne man ngeen fa wona fekk seen bio muy garab bi tosan yo xamne dana leen di dimbale waye da ngeen fa fekki sha allah ay ñaan yo xamne ci si alquran la moom leen di dimbale point de vente yi ngi doon degg Tëngéej point 1 di fàttali ñëpp nag si ndogalu yàlla ne point de vente bi nga xam ne moom ngeen amoon point 1 léegi dafa rendatu mu ngi ngor kon képp koo xam ne yaa ngi nuy topp si wadduha point org lépp loo doon sàkkoo point 1 incha allah mën nga rendatu léegi mën a koo utee ngor incha allah information boobu lañ doon partagé ak yéen. di leen di wax du yàgg dara incha allah dinañ ñëw ak yéen si yeneen i jotaay. yi Serigne Mara Cissé Wadduha moo leen xamal ne bitigam bi nga xamante ne bii moo nekkoon point 1 da fa daan jëlee lépp lu xeetoog wàllum ñaan nekkatul point un ma nga ngor di leen fàttali ne Rufisque Géejawaay ak ngor mooy dox kon mbokk yi ñoo ko déggandoo kon ba nga xamante ne bii moo nekkoon point un nekkatul point un léegi ma nga ngor yow mi nga xamante ne bii xamoo fan la nekkee ci ngor wooteel ci 77 870